Assalamualaikum sëñ Baara na nga def ma yang ci si ma ngi lay ziar bu wér a wér man nga fi sétalon jamono ye ca ginnaw ne ma affaireu ngalaw rap moma duggon ak ay liggéey yu bon ñu ma defoon ak yoyu ak affaireu saytane rap nekkon luma ma ak yoyu ci sét gi nga ma waxon ba jeexaloon nga ma ay garab. ma di xamal ne garab bi ni ma ko waxé won jëfëndiko naa ko wax dëgg gis na ci njëriñ parce que lima mën ni mënuma ko won tane na sant yalla bu ndax dama daan dem bureau sax du ma mën a liggéey damay lal ba sax tëdd ndax sama yaram bi da daan diis sama dënn bi diis ba mënumaa nooyi wax dëgg tane naa bu baax a baax a baax sant yàlla di la sant yow mii nga xam ne yaa ma si jàppale jëf jërëjëf jërëjëf sëñ Bara jërëjëf yal na la yàlla fay jëre jëf lan mooy différence entre rab jinne ak ngelaw seytaane ak guddi. rap jinne ak seytaane ben la jinne mo ñëw ci alquran rap wolof mo koy wax seytaane arab moy wax seytaane ku wax rap amul wala ku wax jinne amul rek xeyna da nga jàngul alquran ndax yàlla nee nit ak jinne la boole bind sak wa ma khalaqtul jinne wal ins illa bi yabudun am ci xetu jinne bi nga xamante itim nak bu bëgge dugg ci nit day jël jëmmi nit boobooy jinne bi nga xamante nak moy jinne seytaane moy jinne nak bi sonal nit ñi ñukay wax faru rap jinne bëggul ko am diine xale jigéen yi am 17 ans 18 ans nek ci buntu adina du bëgg dugg ci sey en général jinné ñoo ñu dañ leen di ndax ñom it ñokay def ndax jinné bu ñu gisé jigen bi xamanteni tay sol nga greffage poudre nga maquillage nga may nga ya nga sol lu yiwudi sey sey cër ngi feñ sa dënn ngi feñ bu ñu xolé sa suuf dara ko ya nga sol ba sol body koku jinné bu la séenee ngay dem tax lay top ndax jinné la yalla bind ci soppé nit ki bo commencé sentir ni yow kat sa alal yaa ngi commencé yàq am ay yàq-yàqu alal xaalis boo am rek day seey loo am day yàqu di am ay jafe-jafe ak nit ñi di commencé gént ay gént yu lëndëm ngay commencé di tëju di wéet doo bëgg wax ak kenn bu ñu manifester noonu rek jàppal ni seytaane commencé na laal loolu nit ki da nga war a jóg ci sa bopp. surtout ci jigéen ñi moom daf leen di def ay avortement daf leen di def ay fausse couche jigéen ñu bëri daf leen di tere ëmb ñenn jigéen ñi dañuy am crise d'épilepsie ba jigéen ñooñu pour ñu am jëkkër sax day jafe rawatina nag. pour ñu am doom mais jinne moom ci gént la nit mën a sëy moom mais mënul sëy nit nii directement boo ko géntee nag am na lu muy bàyyi ci yow bu duggee ci biiru jigéen da koy def ay feebar loolu nag mën na la fatt ba tëj say trompe nga sëy sa jëkkër téeméeri at ak juróom fukk doo mën a am doom man léegi-léegi yàggul ci quatre bi jaar naa ko mhm. doon ñëw seet seet sëriñ bi amoon benn malade bu ma fa doon indi mhm. mais d'après lu ma lu ma defal yëpp gis naa ko fu mu nekk nii sama malade bi alhamdulilah rabbi alamin ñu ngi tane fu mu nekk nii am na jàmm waaw malade bi dafa nag lu ko duggoon amoon di raw bu ko duggoon après ma ñëwee si sëriñ bi loolu loolu la ma expliqué mais fu mu nekk nii yàlla yàlla def na ci def na ci jàmm daal gis naa résultat yi daal fu mu nekk nii ñëw toog sëriñ bi daal danaa sëriñ bi jërëjëf rek lu mu lu muy def li ñëpp gis nañ ko man day en tout cas bon naa ko dégg mais il vraiment impressionné sur quelques une heure de temps je ne sais pas deux salaamaaleykum Serigne Lamine Bara maa ngi lay nuyu euh, di la ziare euh, di la jox sa wàccuwaay. ñu ngi lay santit bu baax baax a baax wax dëgg fi yàlla affaire yi ñu yi nga ñu joxoon ñu ngi koy utiliser matagul mais ñu ngi commencé di ci gis tantaal bu baax baax a baax a baax ndax suñu yaram bi ñu doon diisee Eh, ak gént yi ñu daan def yooyu yëpp yu si bëri wàññeeku na wax dëgg fi yàlla te garab yi matagul sax eh, donc kon dañ lay sant bu baax a baax di la wax jërëjëf. góor moom da koy da koy da koy defloo muy mballu muy foye boppam. waaye li leen koy defloo duñ ko xam. am na góor ñu bëri ñoo ngi dox di dem mais à tout moment seen awra day métti te loolu jinne moo koy def seytaane moo koy def day téye sa awra. am na ci góor yi nga xam te daf leen di xiir ci mooy. tant que demuñu wuti jigéen buy jaay boppam duñu nelaw. te bu ñu demee di sëy idioo ko njàkk ni sax nit la ñuy te fekk jinne lay doon jinne dafa intelligent bala ngay egg fa nga jëm moom jitu na la fa bala mu leen di bàyyi rek ñu màggat ba ni kooku dootul am njëriñ mu yàq àddinaam doo am jëkkër ñenn ñu duñu am jabar ñenn ñu duñu sëy bu boobaa yow nit ki war nga xool lan moo bon am na lu bon lu la topp jinne différence am ak ak nitu guddi mooy jinne daf lay dugg ànd ak yow pour conduire la en erreur pour def la loolu bon soo bëggee jaamu yàlla mu yàq ko julli mu ñëw taxaw nitu guddi nag mooy dëmm dëmm boobu nag moom daf lay tiital dafa am lu muy jël ci yow dëmm moom baaxul waaye nag lu am la ndax ñun ñii di faj dañuy faral di gis ñenn ñi nitu guddi daf leen di attaque boo dajante jinne jullit nag li muy njëkk def mooy képp ku liggéey daf koy dindi képp ku la xeex daf lay daf lay daf lay daf la koy daf la koy tàggal. jinne am na ci dëkk bi ñi nga xamante ni am nañ alal table bi ba mu fees mën nañ ko def mallette d'argent jox la alal ju jeex man dula lor dula yakal du yak sa digganteeg sa borom dula la febar te mën na la jox alal te mën na la jox xam-xam. waye jinne li gëna spécial ci ñom ci ñu leen yalla bindé jinne mom day faté jinne lepp lu mu def tay ala minute. ci mémoire am dañ koy formaté day faté bu défé lu bax faté nako bu défé lu bon faté nako. yalla mo leen bindé non mission bi leen taxé ñew ci kaw suuf loolu duñ ko faté mom dañ koy nekk rek di ci def lepp luy am suba it xam nañ ñun ay sëriñ nañu di faj di ñaan. ba képp ki ñi xamante ni suñu borom mi ñu boole ak moom lépp lu ñu mën ci ak xam-xam ak alxuraan ak xasaaytu sëñ Tuubaa rek danañ la ci ñaanal may la ci léemaay pour yàlla dimbale la loolu sore la te képp ku mu dal buñ la ci joxee ñaan yooyu incha allah rabbi loolu dan la dan la sore dootoo ko gisati mukk sa àddina dina daj définitivement may la ay curaay seytaane yooyu utiliser xam te foo ko taal seytaane dana fa dana fa daw ndax seytaane yi dem dafa am yi nga xamante ni dañ koy moytu ñoom ñun xam nañ ñoom lan la ñuy moytu di ci ëpp doole nak moy alxuraan fu alxuraan karim di di yëkkatiku même boy nalaw nga wàññi ko ndànk di dafa nek yenn jinn yu bari duñ fa mëna dugg képp ku ñu soxla contactel ci contact yi di nga ñu mëna jot daañu la mën a ci ay ñaan suñu kéemtalaay katan bismillah jër ngeen jëf alaykum wa rahmatullah bara fa faa njagayaam li nga wax yépp franchement deug nit sétal na ma ba pare ma fay ka sama xaalis mu xolal ma ba pare dumay sétlu sax lu bari mané ko may naa la xaliss bi parce que li nga ma wax yeb du deug donc yow li nga ma wax yeb dafa deug li nga wax yeb yeb yeb dafa nek ci man ku ne la ku jafé sétal la wante kontana torop ta dara xewagul da gis nga nit wax bu waxé lamuy wax boko analyser di nga xam deug la wala du deug nga xam tamit ki fu la tek gis na ne itam ci sa bir wax li nga ma li nga ma setal danga ma setal setu yene wax ma waxu yene aussi te doomu aadama tam yàlla moo koy orienter xeyna man ni ma xere ci diina l'islam ni ma xere ci jox sama bop suñu borom fonk khadim rasul di jang khaside yi di jang alcorane defuma dara lu dul suñu borom rek itam xëy na loolu la ma yàlla dimbalee sax ba yëf yi mettiwul na mu waroon mettee yàlla moo ma orienté ci yow yàlla xam na ni billaahi wallaahi azim du may faral di dem ci sëriñ yàlla may la yow loo xam ne mayuma ko nga xam loo xam ne xamuma ko ma am yaakaar bu ma la jox ci kàttanu suñu boroom barki sëñ Tuuba Mbàkke Xaadimu Rasuul dénk naa la sama bopp te dinaa la dénk sama njaboot dafa am yoo xam ne du mbiru nit mbiru suñu borom la jërëjëf Fall jërëjëf yal na la yàlla suturaal jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëfati